El Hadji Ahmed Aidara bismillah ñàkkum kaaraange gi day ah. doy na waar terminé yéene kaane coowal douanier ba lee di seexu saaxo waaw am na lu bees loo xam ne am na ca dee ah. waa ji day moom monsieur le douanier xam nga guddi ñetti fan jàpp ñeenti fan ceeru octobre ba la ñu day waaw la ñu ko gis ne mu daal di kon faatu ca àllu kër Massar Galaye la ilaha illallah yéene kaa gi ne bu ñu sukkandikoo nag ci ay xibaar day waaw moom douanier boobee moo dóor boppam bal allahu akbar maa la ko wax ak arme de service am waaye est ce que nag xaru boobee lu mu waajaloon la en tout cas loo ca mën a jàpp day waaw laataa kuma boobu loolee di am moom Seexu Saaxo day daal dinay dem nag ba ca kër aawaam ba jabaram ju njëkk ja est nekkul ne daa demoon nag di tàggu kon ñaari doomam ya ba mu leen gisee nam leen xoolee nam leen tàggatoo en tout cas day jabaram ñu njëkk joojee di aawaam ba waaw ñi ngi laam-laamee ne day dana porter plainte nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëggoon a yàq fa mu xewee day Kër Masaar Kër Masaar googe la seen kaay nee na ñaakub kaaraange ga ak na ni nit ñi du yokkoo kay ca bomb la toog de ca bomb la toog de terminé yéene kaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali ma la Sénégal day waaw fi mu nekk nii gi nga xam ne na ci li nga xam ne moom la Sénégal di gën a jooy fi mu de li fi gën a miti ñàkkub kaaraange Babacar Mbaye Ngaraaf waaw ne lii lépp luy njiit nguur gee njaag rek état bi waaw parce que wàllum agression léegi subaak ngoon gu dëgg bëccëg loolee moo feeña ah. moo feeñ de directeur fa looloo jara laaj ma ne doxatul ma ci mbedd mi rek sénégalais boo njëkk a jot ko lan moo la tere nelaw danaa la wàllum kaaraange ñàkko kaaraange gi nga xam ne léegi moo nekk ci biir réew mi day ëpp na ma ne la doo xëy abisu lumb laa la wax te ko journaliste yi day daal wax na ci ay nit yoo xam ne kon dañ leen a a rey inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma ne la sénégalais fi nekk nii kay ñëppati laa la wax yéene kaay Pape Diogoy Faye gi ne sénégalais boo gis day a a gën a tal wàllum kaaraange sénégalais nu Macky Sall def ba faluwaat la Aly Ngouille Ndiaye gën a tal ka kaaraange sénégalais Babacar Mbengue Ngaraaf la dëgg la Aly Ngouille Ndiaye kay fi mu nekk nii la waaw élection Macky Sall la gën di waxtaane que fukki million ak juróomu sénégalais yi la seen kaaraange waa ASP yi nag police Macky Sall yi waaw Ngaraaf nee na dañoo sori askan wi lool te dañ ne woon sécurité de proximité commissariat de police yi arrondissement yi waaw mooy ku rey nañ la rey rek te jamono joo xam na ñu ngi rey nit ñi day tribune yéene kaay nee gaañaa ngay transhumé té fu tooy ñu takk wàllum transhumance alliance démocratique bencoo waaw nee na gis nga suñu caatu réew di constitution bi day ci article soixante moo njëkk a taxaw ne xeex wàllum ger ak mbirum transhumance mbirum wor kon nag bu ñu demee ba njiitum réew président de la république di encouragé wàllum transhumance koo moom président moo njëkk a Abdoulaye Diop waaw nee na xaw ma fan la journaliste yi kon jëlee xibaar boobee waaye loolee musuma toog sax ba mu dikk sama bopp bi la wax transhumé yàlla dare man sama baay moo nekkoon PDS ma juddu nekk PDS kon man je suis libéral et je ñëw ngay gore ngay gore ba léegi enquête yéene kaay ne président su groupe ba day waaw ab néegu sarale la boo xam ne day fa la rebelle yi di toog aa ah, ah, enquête ne waaw xoolal Modou Diagne Fada ay dëmbooj a toote bang boobee nga coow crise bi am PDS waaw Mamadou Diop Decroix nee na man day xamal naa maître Madické Niang ne ko su ma doon yow du ma bàyyante ak Abdoulaye Wade wax te na nga waaj bu baax fii nga xam ne fii nga jëm yéeni kaa ne waa maître Madické Niang lan moo tax mu jékki-jékki noonee rek daal di soppeeko looloo jara laaj 24 heures yéene kaay ne lan moo tax ba maître Madické Niang mi lee jékki-jékki rek siisu ne du bàyyi dara mayulu Abdoulaye Wade dara mais parité góor benn jigéen benn waaye parité boobee waaw bu dee dañ ko appliqué day juróom ñetteelu vice président ba day jigéen la war nekk waaw kon Papa Diop jiital bokk gis-gis dafay jógee de dootul nekk vice président de Moustapha Cissé de li nekk wax na ko ci Le Quotidien yéen kay El Pistolero ah nee na la ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop élection locale 2019 yaa jum wala maa jum Moustapha Cissé ne de mairie ma ah. de dëkkandoo ko neexatul de diggante Ahmadou Ba ministre ak Mamour Diallo directeur du domaine ñoom ñaara ngay xeex de Le Soleil yéene kaay ne suñu réserve des mines de fer ba nekk ca Falémé waaw nga xam ne sept de tonnes la jébal nañ ko benn société turque ma ne la président Macky Sall kay dana ko signé contrat bi octobre Dakar Times de yori suñu ressources minières yi kay ay tonni tonni tonni or léegi Europe lañ koy jaay suñu coow ak Frank Timis Europe lay teeree ji waaw le juge Emmanuel Gaillard moom lañ mujj dénk dossier ba dee les écoles yéen kay ne dossier Air Sénégal SA kër googu ci zone de turbulence de marti Italie yorin ko doy waar le Philippe Mile yore kon kër ga direct info ne xel comme 2018 ji day xalif général murid Serigne Mountakha Mbacké dal na fi yàgg te wér daal dinay woo taalibe yëpp nee na ñëpp dem forte mobilisation yéen kay gi ne Serigne Saliou Mbacké day waxoon na fi ne képp koo yàlla dana ko def de terminé yéen waaw daal dina ñuy nag ay avocat wu Assane Diouf que administration pénitentiaire day nee nañu Assane Diouf mi ngi ci ay conditions néeg bi ñu ko dugal moom doo nga fa ne néeg ba am na ventilo am lal am toilette intérieure am écran plat abonnement canal plus Assane a ngay woo mbokkam ca Amérique mi ngi dalal ay visiteurs ak ay avocat lan ngeen bëgg vox populi ne en feebarum xel mi day santé bi un dépression ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey guddi day ñoom la mbir mi sukkandikoo ci docteur Aïda Sila waaw nee na ñooñu nag la seen bakkan gën a nekk ci xottu gerte feebarum bopp bu fees <laughs> yéen ci ay boroomi xam-xam de nee nañu nelaw guddi walaay nelawum bëccëg mënu koo remplacer mukk moo tax boo pare mën a la tëjal